salaamaaleykum mbokk yi internet yi ñu ngeen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di leen ziar bu baax a baax di am mbégte beneen yoon àndaat ak yéen seen euh, émission séddoo ak askan wi bi nga xamante ni moom la ñuy amal saa su ne ak Serigne Cheikh Omar Diop mi nga xamante ni borom xam la Serigne Cheikh Omar Diop mi nga xamante ni euh, walu yàlla la nitu yàlla la Cheikh Omar Diop mi nga xamante ni euh, tey àdduna wërngal képp kenn dootu ko présenté ti ci xam-xamam bu mat macha allah Serigne bi nuyu nañ la. maa ngi lay fay bu baax di leen di nuyu di mboolem ku ñuy teewlu ci waxtu wi di nuyu kilifa diine kilifa aade salaamaaleykum wa rahmatulah bisimilah. waa koy sëriñ bi euh, question bi ma la bëgg a laaj mooy ndax wàllu yu yàlla mu ngi am ba tey ndax euh, jigéen ñi jamono jii ñu ngi jur wàllu yu ba tey ak bu fekkente ne loolu am na nan la ñuy xàmmee yan màndarga la ñuy xàmmee wàllu yàlla. alhamdulilah. Euh, laaj bi nga laaj laaj bu am njëriñ te am solo lool ci jamono bi ñu toll. àddina bi ñu nekk léegi jaxasoo na jaxasoo boo xam ne dem na ba kenn xamatewul kii et kii. waliyu ak wëyu ñaar ñoom ñoo bokk nu ñu leen di bindee mais benn outil lañ am mooy la laam gi soo dindee laam gi da ngay am wëyu soo fi bàyyee laam gi nga am waliyu waliyu yàlla mooy koo xam ne ci baat bi ci nga xam ne. mooy baatu arab bi mooy koo xam ne yàlla moom méngoo ay mbiram loolu la baatu wala yu di waaye nag kooku mooy kan ndax mu ngi am ba tey ndax jigéen ñaa jur ba léegi ak su fekkee ne ñu ngi koy jur kan la ci biir ñi nga xam ne ñu ci àddina bi loolu laaj boobu nga laaj dafa nekk loo xam ne dafa am solo ñu war ko bàyyi xel yàlla dafa jël waliyu jaxase leen ci biir doomu aadama yi pour bëgg ñu wekk doomu aadama yépp ndax wala xat karam naa bani aadama moo teral doomu aadama teraa nga jooju nag ci la bindee ay waliyoom jaxase leen ci seen biir bind ay aqtaab bind ay garaat yu bari nañ waaye bind ba bind ay yonant loolu nag yàlla bind jaxase leen ci biir eh, nit ñi yonant yi ñoom dañ daan présenté wu ne man yonantu laa yàlla moom moomu yónni ci yéen waaye wëli yi seen ay feeñuwaay léegoo léeg ñu am sañ-sañ feeñ waaye léegoo léegi ñu xàmmee leen ci seen ay jikko ak seen ay jëfin waaye yàlla ci alxuraan dafa wax ne yàlla wax na ne su dul woon jañ ak yàlla ñenn ñi ci ñenn ñi kon yàlla yàq at suuf si kon àddina bi ñu nekk wëli yi yàlla yi moo tax àddina bi continuer di exister ba tey hmm? léegi soo bëggee xam waliyu yàlla yàlla mu ne euh, waliyu yàlla yi ñoom duñ tiit duñ jàq duñ jàq duñ tiit ci àddina bi ñu nekk duñ jàq ci àllaaxira ga la ñu jëm doomu aadama nag boo gisee yàlla may ko mu am dal ah, yàlla nga gis yàlla may ko mu jublu yàlla wan ginnaaw lu dut yàlla kooku mën nañ koo ooy waliyu waliyu yàlla tamit dina nekk koo xam ne tuddkati yàlla lay nekk moo tax ñii nga xam ne ñooy tudd yàlla guddeeg bëccëg ñu la yàlla wax ne ñooy wali nga xam ne sikkar rek nga leen di foo leen fekk dañuy sikkar tout amuñu droit ñàkk nekk nekk euh, waxtu benn du am benn waxtu mu ñuy toog te duñ te tudd yàlla ak foole xaala boo leen mënti fekk ci tudd yàlla la ñuy nekk ñooñu tamit ñoom wali yu mel mandarga foofu tamit danañ ko fa xàmmee danañ fa xàmmee ñi nga xam ne dañuy ziyaaraante ngir yàlla ñi nga xam ne dañuy sol seen daal dem siyaara ji seen mbokk siyaara ko ngir yàlla rek loolu tamit dañ ci xàmmee mandarga waliyu te it ñi nga xam ne dañuy dajee ci géewu zikar yi nga xam ne dañuy def géew ñëpp toog ñu toog toog di tudd yàlla te it loolu seen ak seen mandarga la te nañ ci xamee ne ñii ay waliyu yàlla lañ waaye nag ndax jigéen ñaa ngi leen di jur ba léegi jigéen ñi jur waliyu bareetuñu waaye waliyu léegi da gën a bari ci jamono bu ko jamono njëkk ba dafa am benn nit boo xam ne yàlla moo ko indi ci àddina mu nekk xéwalu àddina kooku mooy def production waliyu yi am koo am ñoo xam ne yàlla daf leen indi ci àddina ñoom ñooy def production waliyu yi yaa ngi dégg waliyu yi am nañu leen di produire nga xam ne seytaane lañuy jàmm dañ leen di influencer xiir leen ci fo créer leen ay ay barab yu ñuy dajee di fa jaxasoo góor ñi jigéen ñi ñooñu ñooy tabaxu waliyu yi ñooñu ñooy liggéeyal seytaane am ñuy liggéeyal yàlla pour tabax ay waliyu nit dina judd du nekk waliyu yàlla dogal mu ànd ak waliyu yàlla ba mu def ko waliyu nit dana judduwaale wilaaya nit dina ñëw judd judduwaal juddu nekk waliyu léegi nag li tax mas naa ko waxtaan ak sama soxna loolu kii la anecdote bi may nettali la fu duggaat ci ci sa laaj fu gën ko confirmer uh-huh. ma sama soxna si ma ne ko dangeen di di góorgóorlu nga def ndànk su ngeen ko su ngeen góorgóorlu woon pour ngeen jur euh, euh, xam nga ñu man a ñoom dañuy waxtaan. parce que am na si ñoo xam ne foofaw gaa yi liggéey pour indi leen. ma ne ko pour kooku ñëw wala ñooñu ñëw il faut ngeen jaayante ma ne ko man li ma constaté man mm-hmm. man maay sëy maay borom kër gi maay jabar ji. Mm. mu ne ma lu tax ma ne ko parce que say say yére maa say yére maa koy fóot. Mm. Hmm? say bool maa koy raxas. Mm. kër gi maa koy fobeere samay yére man maa koy fóot hmm? say doom maay suñ demee buñ taqee maa koy raxas maa leen di maa koy raxas maa leen di toppatoo ah donc añ bi maa koy togg maay togg maa yekk maay defar ndab li maay defar lal bi maay defar lépp néeg bi maa koy defar hmm? cuuraay li maa koy taal mun ne ma noo koy defee mu a ko parce que jànq bi maa koy fay ah mi naan mi muy fóotkat bi maay fay fóot fayal sama bopp fóot fayal la fóot hmm? raxas bool yi maa koy def ndax jànq bi maa koy fay mu raxas bool fobeerekat bi maa ko jël parce que maa koy fay mu fobeereel ma gardien bi ci buntu kër gi maa koy fay yow loo def te chaque fois may gis ñuy rek ñuy réclamer jigéen droit droit de la femme droit de la femme droit de la femme donc loolu tax na rupture wala am mais grâce à Cheikh Ibrahim Niass mi nga xam ne moo wax ne aw jëdd nii xaqan li jabril kasri fa inna nii wakiilu sir sirri su dul woon Baye Niass wala am rupture ci àddina yàlla lem suufam si mu jeex ndax Baye moo ne li kulli wali li kulli aarifin waliyu wala akasa mu ne waaye nekkul waliyu bu nekk aarif la waaye aarif bu ne waliyu la te usine Baye ñas ay aarif lay produire Baye Niass ay xaarif lay produire ndax moo ko wax ki gën a tuuti ci camam topp mucc na ci bokkaale yàlla te ku mucc ci bokkaale yàlla nekk di xaarifu billaa te ku nekk xaarifu billaa nekk waliyu yàlla xaqan kon Cheikh Ibrahim Niass moom moo tax rupture waliyu amul mais du jigéen ñeet jigéen ñi ñooy jur waliyu de Baye Niass bépp taalibe Baye ñas boo xam ne tarbiyu na xam yàlla waliyu yàlla la parce que Baye moo ko wax. d'accord kon ñoom jigéen ñi maa ngi leen di wax ne nañ góor góorlu sinon pour ñu jur wali yàlla dana nekk lu jafe ci ñoom parce que seen jëkkër yi ñooy def lépp lenn lañ mën a jaaree ci seen jëkkër yi pour mën faa jur waliyu mooy mooy may ko kanam gu leer may ko jàmm ba pare tamit nangul ko ci néeg ba foofu lañ defee te ca néeg ba sax soo góor góorgóorluwul tuuti yow yaay neexal yaay fexe yaay def pexe yi pour loolu mën a sotti léegi nag ñu ngi taxaw parité égalité droit de la femme man damaa dem ba yàgg may laaj femme yi lu ñu leen desel parce que man constat boobu laa def ñun lu ñu desel jigéen ñi. ndax yaay gi ñu nekk ci ñun kon loolu maa ngi koy wax ci ndax jigéen ñi ñu ngi mën a jur waliyu mhm. nee naa la waliyu yàlla yi it noonu lañu leen di xàmmee mooy duñ tiit. Mhm. lu luñ ñaan yàlla yàlla nangu ko. luñ ñaan yàlla yàlla nangu ko loolu ci beneen beneen beneen aspect la loolu. Mm-hmm. loolu wali yàlla yi am na ñoo xam ne ay ñaankati yàlla lañ yàlla di leen nangul te dekkuñ ay wali yàlla. Mm-hmm. am ñoo xam ne ay ñaankati yàlla lañ yàlla di leen nangul ay wali yàlla lañ waaye nag loolu xàjjale bi fa xame mm-hmm. mooy ci jikko ya fa ngay xamee loolu. ndax yàlla moo ne adduhooni astajib lakum ñaan leen ma ma may leen. kon ku ñaan yàlla yàlla may la kon duñ teg duñ sukkandiku ci ne ku ñaan yàlla mu may la rek waliyu nga waaye ki ñuy xamee ne waliyu la mooy koo xam ne day takkoo tudd yàlla koo xam ne day dem ci géewu zikr yi koo xam ne dafay naafila lu bari dafay julli lu bari du taat du faat waxtu koo xam ne dafay fegu te it koo xam ne dafay jël mbiram lëkkale koog mbiram yàlla d'accord day génn ci ci cadre bu nga xam ne mooy mbiri boppam. xam nga xam nga sëriñ bi léeg-léeg nga gis euh, koo xamante ni dafay dajale loolu yëpp nga wax yëpp day day bari lu muy tudd yàlla day bari lu muy naafi la mais boo xoolee ba ci biir euh, wayu la gën a gën a gën a nduroo ka ka ka wàll yooyu est-ce que amul tamit leneen loo nga xamante ni euh, war na cee mën a dolli ci jaamu yàlla boobu noonu ci tudd yàlla boobu noonu pour moom nekk waliyam mën a mën a mën a nekk loo xamante ni lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu dëggal la. waaw xam nga. bu fekkee ne jullikat lu fekkee ne dafa sàggan loolu am na koo xam ne jaamukat yàlla la waaye jaamukat yàlla bu sàggan la yàlla wax na ne inna salaata tanha xanil fahsa i wala munkar wala zikrullahi akbar su fekkee ne bëril na ay julli yàlla dina ko dimbale ba sàggan-sàggan yooyu dañ ci moom kooku ay naafila lañ koy sas ak julli waxtu yu mu respecté ko su ko defee rek loolu dañ ci moom waaye jotewut ak wilaayatu dara wali yàlla nit ki bu fekkee wali yàlla la lu bon daf koy seexlu parce que yàlla waaja wax na sax baxada baxadal fanaa yi fi laahi kun kay fama tasaaw gannaaw boo jëmee ba jeex ci yàlla melal ni la sob bu jeexee ci yàlla nekkatoo fa yàllaa fa nekk ni sob yàlla rek la yàlla mel faxaalu li maa yurit kon kooku mën nañoo gis ne ku jeex ci yàlla bëgg-bëggab yàlla rek ngay am fekkee jeex nga wér na ñu bari nag wax nañ ne jeex nañ ci yàlla fekk seytaane kar na leen léegi nag bi leen seytaane kare ñu jox leen ay saleen ay baat ñu yuuxu tudd leneen fekk na egguñ ci yàlla seytaanee leen kar léegi mooy waral nag bu ñu wàññeekoo lépp lu xaraam dañ koy ñemee def yaakaar na egg giñ egg ci yàlla leen may permettre moo leen moo leen may moo leen autorisé pour ñu mën a def loolu fekk na àgguñ ci yàlla ndax bu ñu àggoon ci yàlla wa baxda wa wa baxda wa baxdal fanaa i hmm, gannaaw boo jeexee ku jeex nekkatu fa ah fillaahi ci yàlla mu ne mu ne wane kun nekkal fa maa tasaaw kan kun kay fa maa tasaaw nekkal kon comme ni la soobee kon yàlla li ko soob lay def yàlla faalu li maa yurit kon nit ku jeex ci yàlla dafay jeex ci yàlla ci jëfam ak ci melo waaye doo jeex ci yàlla ci wax rek. jëf teewee nga def li la leex yàlla bëgg bañ yëpp nga di ko def nga ne waliyu nga a ah, man de neewuma kuy àtte jëfi waaye loolu moom jànguñ ko te it miinuñ koo xam. d' accord euh, sëriñ bi jërëjëf léegi euh, bu fekkente ne loolu lépp dajale ci nit ki ba ñu xam ne kii wàllu yàlla la lan moo war a nekk taxawaayu nit ñi nit ñi lan moo war a mën a nekk seen relation ak kooku noonu ngir ñu mën a jariñu ci kooku. waaw loolu yàlla dafa bañ ma nëbbu wàllu yow ci nit ñi pour ñu respecté ñëpp du moom rek moo ja jagoo respect dañ ko war a gën a fëddali ci moom ndax teraanga yàlla yi ko yàlla jox. Mhm. ndax waaye doomu aadama yëpp lañ war a respecté ndax yàlla ci boppam ba muy teral teral wàllu yu rek bàyyi ñeneen ñi wala xat karam wala xat karam naa ba ni aadama la yàlla wax doomu aadama la yàlla teral wala yàlla yi nag yàlla moom méngoo seen ay mbir lam leen di defal ci ay teraanga nag loolu ay xusuus ya lay nekk ci ñoom kon doomu aadama bu nekk daal war na respecté moroomu doomu aadama muy waliyu mu ñàkk waliyu mais soo demee ba am rafet njot ci moom ne ragal nga yàlla ragal nga ci moom ne ay waliyu wali wilaayaa ci moom mm-hmm. waliyu la laa bu boobaa nag respect bi na gën a yokk parce soo ko fonkee rek nangu nga dogal yàlla ci jaamam bi loolu laa la ciy tontu wa donc kon euh, relation boobu dina permettre lépp loo loo loo bëgg ci waliyu bi nga nga nga am ko maanaam euh, lépp loo xaatir euh, ngir yàlla defal la ko rek mën na la ko defal wala sax booy ñaan mën nga lu ci moom yàlla defal la sa sa sa ñaan ndax fal gi mu ko fal. waaw loolu am na am na ñuy def tawasul ci wali yi am na ñu def tawasul ci alquran am na ñuy def tawasul ci tur yàlla yi am na ñuy def tawasul ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam tawasul moom loolu nangu nañ ko ci mboolem nit ñi ak waliyu yàlla yi. loolu mu ngi mel ni yàlla may ma nangam ci barke Cheikh Ibrahim Niass loolu tawasul la ndax tawasul def nañ ko ci Abbas ci bàyyi yonentu yàlla Muhammad salaa salaam yonentu génn na àddina ñoo nit ñi ñëw nañ tawasul ci yonentu bi ne ko ñaanal ñu taw yonentu ñaan ñaan taw ndax sax kii Seyd kii waxoon na ne yonentu salaa salaam wa ab wa abyadu yustaqal qamam bi wajhihi simaalu yataama xismatun lil haraamini waxoon na yonentu bi salaa salaam ne ko sa kanam gi rek mën naa tax yàlla di taw gaa bi ñëwee di ñaan lu yonentu bi taw bañ demee ci yonent bi ñaanent bi xool asamaan si xool rek yàlla ji taw rek ci la wax ne ana ku may wéy ci la ko naa leen waxee loolu na ko xanaa da ngaa bëgg a wax ma wax wéy wa ki euh, euh, kii waxoon abu abu taalib waxoon euh, su ma jumut ne wax ab yorisaxamaam bi wacci simaalu yittaama xasimatun lil xaraami yi loolu daan am def nañ ko ci yonent bi ab inna xabaas tamit defoon nañ ko ci moom gannaaw bi yonent génn àddina ba beekoor ñëw gaa yi ñëw ci moom na ci yonent lañ daan jotandiku neewu fi te yaay bàyyi taxam dañoo bëgg nga ñaanal ñu yàlla yàlla ma ñu tax bu ne yàlla suñ baat yi feet na delek ay bakkaar ñu ngi sëgg ci sa ron di toroxlu ci yow nga may ñu ndox ci barke sa yonent bi yàlla ji taw ba ndox mi baawaan jot na ko ne ci xabaas muy hadis yu wér jokkandiku nañ ci yonent bi muy hadis yu wér donc jot ko ci yu yàlla mën na ne ndax arqa yàlla ci boppam moo ñu wax ne euh, alxolomaa u war a sotan an bi yaay yonent yi waroom xam-xam yi ñoo leen di doon hmm? Hmm. te it ne ñi gën a yàlla mooy ba borom xam-xam yi hmm? kon euh, euh, wëlu yu daal njariñam bari na te it jamono bi bari nañ jamono bi bari nañ ak travers Cheikh Ibrahim Niass mm-hmm. waaw jërëjëf sëriñ bi jamono ji wala yi bari nañ à travers Cheikh ñas mbokk yi loolu lañ loon indiloon tey ci euh, séddoog askan wi dégg ngeen ko ni mu ko waxee noonu ci wali yu ndax mu ngi am ba ak léegi ba ndax mu ngi am ba tey ndax jigéen ñi ñu ngi jur wali yu ba tey nan la ñuy def ba xàmmee wali yu lan mooy taxawaayu wali yu yooyu yëpp la jàll di tënk euh, ci euh, li nga xamante ci ay simili la di ko jaajëfal bu baax a baax sëriñ bi ñu ngi lay jaajëfal jox la nga nga tàggoog askan wi ci séddoog askan wi nga xamante ni moom nga leen di amal saa waaw man li may wax rek mooy pour boo bëggee nekk wali yu jafeetul léegi lépp yomb na soo bëggee gis sa mbokk bu nekk Amérique jafeetul soo bëggee dem Amérique jafeetul soo bëggee gis loo bëgg gis jafeetul ah léegi lu umpuwee woon yëpp lu nëbbu woon yëpp umpe feeñ la léegi wali yu tuñ bëggee nekk jafeetul soo jokkoo Cheikh Ibrahim rek nga nekk wali yu si saasi donc man lu laay dénk wi ku bëgg nekk waliyu yàlla fexe lekk xaarifu billaa soo nekk xaarifu billaa nekk waliyu yàlla te xaarif bàyyi ña su wax na ne Euh, laa xaarifu ilaa bi baab bi waaqifun kon kenn du xam yàlla lu dul sama buntu nga taxaw kon bunt bi tegtalewut ne kenn du xam yàlla feneen di nga fa am benn benn benn benn xam yàlla yu am waaye xam yàlla dëgg di ko xam le jox nit ki mu xam ko xam xamle ko ko nga jox mu xam xam xamle kooku bàyyi nit la ko yàlla bay buntu boobu bàyyi la yàlla jox caabi ji tëj na ko faqat jeex na kon li may digal nit ñi mooy ku bëgg a nekk waliyu yàlla fexeel nga jonjoo ak Cheikh Ibrahim Niass soo ko defee leen gërëm di leen sant asalaamaaleykum wa rahmatulah jërë ngeen def jërëjëf sëriñ bi jërëjëf Cheikh Ahmad Diop mbokk yi jàngeen jëf ci teewlu bi ngeen xamante ni yéen a ngi doon seetaan séddoog askan wi di leen dig daje incha allah ci beneen numéro séddoog askan wi jàngeen jëf